xam nga lii yëpp nag dafa am dafa am day dëpp gi. Mhm. te moo di. salaatu ala nabi mhm. mooy julli ci yonent bi. Mhm. ba ay salawaat nag ñu am. yu bëree bëree bëree bari dama xamul nag yéen ci seen tënk yeeg seen kii yi. Eh, daf ci am yooyu tawarkalla wala. waaw bari bari na xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ci saaba yu ko ko laajoon ni ko bis penc kan moo fa ëpp doole kan moo fa ëpp daraja. mu ne ko sallu bi kii julli ci man. moo tax boo xoolee sëñ Tuubaa daa jël at mi muy fukki weer ak ñaar mu ni salaatu sitta bi marxi sitta taati ibata mahati sha juróom benn weer yi damay tagg rasulillahi juróom benn weer yi may julli ci moom nga xamante ni at mi day daal di jeex léegi nag salaatu ala nabi mooy li nga xamante ne nii képp ku koy def ak ku mu mën a doon mën ngaa wat ni yaag yàlla yaa koy yéen a bokk di ko def yaag malayka yi yéen a bokk di ko def te li jaam bi di defandoog yàlla yërmande lay doon ci moom ndax julli ci yonent bi lañ wax julli gi ñu xam nag muy allahu akbar sami allahu liman hamida rabbana walakal hamdu googu moom yàlla képp lañ koy defal mooy prosterné wu di sëgg waaw boobu moom yàlla képp lañ koy defal ah, ak waaw waaye nag julli gii ñuy wax nag muy julli ci yonent bi loolu ñaanal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ni képp ku koy def mooy métiem yàlla yaag yàlla yéen a bokk métier inna allaha katooy malaikatahu na ala nabi waaw yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi léegi nag farata la ci jaam bi donte benn yoon la ci bis ci ci ci ci ci ci dundam mu julli ci yenente bi mhm. am na benn labbe benn ku baax koo xamante ni nii dafa faatu bi mu faatoo boo xoolee Ibris bi bi alaaji Abdul Aziz Dabax bu mag bi mhm. bind trondoo bi nekk Tiwaawan mhm. moo bind Ibris Ibris boobu bi mu ko bindee am na ci chapitre boo xamante ne daa am waa ji bi mu faatoo dañ ne dañ koy yóbbu dañ koy yóbbu safara sunu borom ni leen déedéet bu leen ko yóbbu de ndax kooku mës naa ubbi ab téere gis ci turu sama xarit bi daal di julli ci moom. Hmm. te julli googu mu julli woon ci moom nag nangu naa ko moo tax du koy dem sawara hmm. kon képp koo xamante ne nii ragal na bëgg na àjjana. Hmm. bëgg am ay martaba. bëgg jege yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg yàlla di ko jégal bëgg yàlla di ko wërsëgal nay julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa mhm. te képp kuy julli ci yonent bi ak ku mu mën a doon kenn du la gis di la yërëm waaw salaatu ala gu wér nga di ko liggéey amul kenn ci àdduna ku lay gis di la di la yërëm waaye yi ci gën nag mooy yi nga xamante ne yonent bi da koo jàngale mhm. lu mel ni salaatul ibrahimiya gis nga fi ne moom dañ ko indi ca ñaareelu ñaareelu ñaareelu taay ba nga xamante ne nii mooy nekk mu nekk sunna mhm. nga xamante ni nii mat gu mu mat la moo tax ñu di ko indi nga xam nit ki lu mu ko fàtte fàtte fàtte ci ñu julli salaatu ibrahimiya nga xamante ni loola moom lu wér a wér a wér wér la mu ni benn salaatu gënu koo mat mhm. bu dee salaatul fatiha nit ki yi nga xamante ni jàpp na ba pare jàpp def farataam jàpp ba def ñaan nga mu war a teg ba pare teg ci salaatul fatiha jaamu yàlla gu mu jaamu yàlla ci ci njàpp moom sunu borom dana ko nangu te ba pare bu fekkee ne dafa jàpp ba pare wax salaatul fatiha benn yoon sunu borom dana ko jéggal ay bàkkaaram donte bàkkaar yi dafa toll ni géej salaatul fatiha benn salaatul fatiha wecc na juróom benn téeméeri beneen salaatu bu dul moom kon na salaatu yi noonu la ñu ëppantee. waaw jaat lay am ay. waaye nag am na salaatul ummi salaatul munji salaatul euh, salaatul naariyu yooyu yëpp am na salaatul munjiya muy muy muy allahuma salli ala sayidina muhammad salaatan tunajjinaa biha min jamihi al ahwali wal afat mhm. wa taqdi lana biha jamihi al hajati mhm. wa tutahiruna biha min jamihi al shayati wa tarfahuna biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha ahsan hayati min jamihi al khayrati fi hayati wa ba'da al mamati mhm. kooku salaatu bu garaaw la salaatu boobu téeméeri yoon képp ku ko mën a saxal bis bu jot suñ doo am aajo ba suñu borom di la gàntu faw suñu borom di la fajal sa aajo moom moom salaatu salaatantu na jina léegi nag salaatu boobu tamit bu fekkee nit ki am na aajo donte aajo ji ci ci guddi maanaam comme da koo aajo ji da koo ci guddi gi mu bëgg mu faju ci suba si hmm. bu toogee ci guddi gi def junniy salaatantu na jina allahumma salli ala sayyidina muhammad salaatantu na jina bi ma wax léegi hmm. suñu borom dana ko fajal aajo boobu mënta ñàkk moom maanaam suñu borom da ko koy fajal ba mu kawe nu kawe njortam bu dee beneen salaatu bi nga xamante ne moom la ñuy wax salaatu salaatu naari yu muy allahuma salli salaatan kaamilatan wa sallim salaaman taama ala sayidina muhammad allazi tanxalu bihal xoqda wa tanfariju bihal kurba wa tuqdaa bihi xawaaiji wa tunaalu bihi raayib wa xusnal xawaati wa yustasal xamaam bi wejjikal karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamxatin wa nafasin bi hadadi kulli mahlumin lakka mhm. téer yëpp lakka la ñuy indi waaye lakka boobu nag daa am secret bu ñu nëbb muy yaarab bi mhm. yaarab bi ji moo ci manqué léegi nag képp koo xamante ne nii yaa ngi toog di ko def 4444. man maa la wax nii la 4444 salatu naari yu xajul ci benn benn aajo. sëriñ bu mu mën a doon ku la indil aajo lu mu la jox bu la joxoon milliard lekkal waaye boo ko defee 4444 salatu naari yu bu wóor nga def ko definu sell sunu borom dana faj aajo boobu. fi ne eh, am na talsam salhamu kam la su la xusay sii sun fi nii li ma wax nii rek 4444 surtout ah, ci talsam mi salhamu kam la su la xusay sii sun boo ko calculer rek 4444 lay jàpp nga xamante nii moo jàpp salaatu naari bari na ay salaatu